jaar ci ay radio di def ay émission animateur musical la comme comme DJ yëpp après ma yok ci gis ni animateur yi ñu ci bari musique rek lañuy def man it gis que ñëw na man il faut ma indi sama benen touche bo xamni li Sedin Sedine ban quoi créer ben affaire bo xamni li ku ko dégg rek automatiquement ci ndoy ban la lay yobbu ma gis ni ñëpp musique lañuy def mané xaram ma jëma créer ben affaire créer ben émission

ak yeneen i télé yoo xam ni bi ma bi groupe Futurs Médias soxla woon soxla woon nañ ma ñoom tam mais tam kilifa gi nga xam ne moom moo jiite Futurs Médias contacté ma woo ma recevoir ma waxtaan ak man que bëgg na liggéey ak man parce que ay at a ngi nii mu may déglu waaw ma ñëw ñu ñu ma comme benn employé boo xam ne dugg na groupe fitir Médias taamu ma ci tele wala rajo wala feneen soo nekkee ci groupe moom nekk nga ci groupe. borom groupe ba wala ña yor programme ba fan la sentir lay dugal ñu gis ni sentir nañ ma wareef lañ ma sentir ñu dugal ma euh, wareef yaakaar ne war nañ war naa cee mën a yokk dara. Walf ni ma fa jógee du jàmm ak salaam laa fa jógee liggéey naa fa ñaari at yoo xam ni defe naa ni ñi seetaan seen télé bi dinañ mën a cautionner lii may wax liggéey naa fa ñaari at yoo xam ni awuma faa kenn problème liggéey normal wàcc normal teg ko ci temps teg ko ci li nga xam ne ñoom laa signante ak ñoom. jóge fa jot ma bëgg fa jóge jóge fa parce que man je suis un homme libre. non non raw Paa Ndiaye Lo moom mënu ma ko ndax Paa Ndiaye Lo Ndiaye moo moo moo ma mag fuuf sama papa la maa ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér mais man bi may ñëw groupe Futurs Médias xaw ma woon ni wareef laay def te bi may ñëw fii groupe di Médias fekk na Paa Lo Ndiaye Paa Ndiaye Lo fi donc man bi ma ñëwee dama ñëw en tant que liggéeykat bu ñu recruter ci benn groupe. soo ñëwee ci benn équipe nag <laughs> borom équipe ba wala entraîneur ba moo naan la défenseur ngay doon wala attaquant ngay doon bi ma ñëwee ci groupe bi ci lañ ma affecté ni ma dangay ngay dem def wareef te man bi may ñëw fekk na wareef amatul woon donc man ñëwuma pour remplacer ma Samba wala remplacer ma dem Demba dama ñëw ñu teg ma fenn ni ma fii ngay doxale ma defe naa ma ñëw foofu di doxal que raw naa ko wala rawuma ko man du loolu laa jublu parce que Pape Ndiaye loo Ndiaye la Palla Ndiaye Lo Ndiaye borom xam-xam la kilifa la toujours man damay toog di déglu ay émission di ci jàng lu baree baree bare ndax li mu xam xawuma ko mat na ma bàyyi fa mu dem dewuma fa donc euh, tuuti naa ti di ci di di concurrence ku mel ni Pa Ndiaye ñoo Pa Ndiaye yaakaar naa te roote ci moom daal moo ma gënal di naan damay wujjanteeg moom man du ma animateur boo xam da ngay toog ci climatiseur rek ñu lay ëpp ngay wax loola leerul man bëgg naa lépp lu may wax mu doon lu ma leer tour inspecteur bi ndem si yàlla sa tata déggen ñu koy ñaan mu yàlla xaare ko àjjana moom moo ma tuddee woon tuddee ma inspecteur ci ay recherche yu may def ak ay gëstu def nañ fi thème ci drogue bi da ngay dem lijjanti ji drogue bi fan lay jóge yan liggéey la ci force de l'ordre yi def jaaykatu drogue yi fu ñuy jaar maanaam def gëstu bu bare bare ci drogue bi bala ngay tok ci plateau bi nga xamne di nga toogaaleeg lu bare bare bare bare bare suñ defee gëstu ci li nga xamne mom modi affaireu di affaire maraboutage yeeg tamit da ngay dem ci ña nga xam liggéey lool ak ña fay dem nga waxtaan ak ñom def ci ay gëstu yu am solo bala ngay tok ci plateau bi wara wara tok ci plateau wu télé di lambatu da nga wara wax lu leer so sétlo limay wax bama dalé wax ak légui ci télé wala rajo gisuguma ku tok weddi dan nan lim wax yi di critiquer ni di apprécier àdduna moo demee noonu ñii dañuy critiquer ñii di apprécier mais kenn dindeegul li ma wax donc soo gisee ñi ni naan ma ay inspecteur ak yooyu noonu gëstu bi may def la man damay dem jusqu'au bu jox nañ ma ay moyens yu ma demee pour gëstu ji donc sama rôle mooy ma dem gëstu ji pare ñëw duma animateur bo xam ne naan thème bi lii rek ñew rek taxaw tem bi rek ngay tok di wax di lambatu di wax lolé leen leeru la ki làmbatu non non non man dama lay ñew wax la paré tegal ay preuve tegal ay élément nga suivre mbir mu mënti doon ak ñinga nga xam ne ñoom ñoo dund mbir mi ñom ñoy ñew expliquer. waaw man musuma am problème ak justice sama soxna musul am problème ak justice c'est nga so siwé mom yoyu mënul ñak peut-être que ñoñu man leen doon viser jotuñu peut-être ñu jaar ci sama soxna mais lolu porté nañ plainte justice bi mi ngi ci def lim ci wara def té défé naa ne avancé na bu baaxa baaxa baaxa baax man duma togn tooñ kenn ci radio tooñu kenn ci télé ci vie vie bi ni tooñu kenn mais soo togné ba egg fi man soo togné man mën naa laa baal mais so laalé sama njabot nak mom la euh dama ci taxaw carrément té ki def lolu euh pour détruire ma moo ko taxoon mais yalla def na ni réussirul loolu mais dinañ di porté nako plainte yoon mi ngi ciy def liggéeyam je pense que amna ci ño xamni interpeller interpellé leen ba leen ñi ngi leen di entendre inshallah ci fan yi néew di ngeen ci di ngeen xam affaire yi fu mucc parce que man loolu duma ko balé waaw. amut soxna dundewu ko dara yàqul dara ci kiyam dundewul dara xam nga tay suñu la waxé lo xamni du defoo ko dulo dulo du stressé do lay def dara xam nga def ko dara mi ngi dund dundam normal ah, mom voilà. mais dégg ngeen kay aw moo lu ci loolu kay sénégalais yi xam nañ ko jeex na dégg ngeen kay saa mooy dégg ngeen rek waaw mooy dégg li sénégalais yi wax mooy dégg rek noonu ngeen ko gisee woon noonu la mel waaw li noonu ko ngeen ko gisee noonu la mel dégg ngeen euh, sunu yaay la sunu sun sun sunu lépp la mën naa ni li tax ma ñëw fii nii fii nii Futurs Médias dara umb ko ci xam na lépp yëg na lépp teg na ci yoon. bañ bañ nekké ci yeneen i télé yeneen i rajo nga xamné ne ñu won fu ñu nekk sax da loxo musul joggé ci ñun dañ daan nekk ci yeneen radio di liggéey mu ñuy déglu di ñu corriger di ñu tek ci yoon sekk ak moom teranga sekk ak moom lu bare bare bare bare nit ñi dañ yaakaar ni bi nga nekkee fii ngeen commencé fa dégg ngeen ñoo bokkoon environnement FM maa doon téye man technicien la radio moomu daan maa ko daan jàppal technique environnement FM Océan FM Seneweb dégg jaar na seen web ñu bari xamu ko créé woon na benn site internet bu tudd Deshiba point com dégg ngeen Chimerba point com yooyu yëpp maa ngi fa doon nekkoon di fa liggéey moom maa moom yàgg nañ de donc ñu bari dañuy yaakaar ne ci plateau Wareef bi la ñu mënante mais dégg ngeen euh, femme la boo xam ne elle est elle est extraordinaire moom dimension am dégg moom beneen affaire la yenn saa nga dugg ci dara sax. dugg ci dara ci ben wala nga sóob ci ben émission mu xamné bi ni day indi ay problème mu la mu la mu la téggil sa loxo nga genn mom dal ci ci ci ci ci même su dul ay télé radio dafa mëna a taxawu nit nit ñi c'est nak Sénégal c'est dommage da ngay bayyi ba ñu dé ñu lay doga xam dañuy bayyi ba nga dé ñu lay doga waxal lu baax Sénégal soy dundu du la waxal lu baax duñu reconnaissance problème reconnaissance lañ am mën la célébrer nak la sa bésu jour sa bésu faatu si ñëwee ñu ñu ñu ñu feetal la anniversaire diw njot na nañ ko feetal mais soo dee dund nga baax di def lu baax duñ ko nangu feek deewoo duñ nangu nit ku baax nga Ndoye Bane liñ koy critiquer Sénégal gi yëpp su deewoon tey nga xam su deewoon ku ne ubbi sa gémmiñ di wax ku ne ubbi sa gémmiñ pourtant baax na daan na def lii daan na gis nga ci buntu tele bi gis nga nit ñi nit ñi nit ñi ci buntu tele bi ñooñu ngay gis ñu man la ñuy xaar luñ may xaare dañoo am yaakaar ci man ku feebar su ma la mënee jàppale jàppale la mbuus yee ngay gis benn fa femme moo am ay triplé ay doom ñetti doom moom lay wëral fi mu nii utal ndimbal nu ñu ko jàppalee pour ñetti doomam yi man ci loolu lay dox mais nag yàlla dafa def nii soo baaxul soo doonul nit ku baax doomu bëgg soo ba doonul nit ku baax laa wax de doo bëgg mukk nday baan mais su fekkee def katu bon nga nit ko bon nga ndoy baan da nga koy bañ du la arrangé ah mais man nekkuma fi nag pour di wax nit ñi lu leen neex wak du leen raay ak di leen diw bër beeg yooyu non non man je suis pas la pour ça sama papa jurul kuy tàggaate sama yaay jurul kuy tàggaate. non déggeen dañuy giseen dañuy déggante tout le temps tam gi rek moom bi mu gaañoo ak tam xarit gi. defe naa matul une semaine ci tamxarit gi rek lañ mujj a déggante wax non wax wax téléphone kafoore ana cere ji waxal mari mu ta yàkkal ma cere waaw loolu la rek déggeen déggeen déggeen maa moom du ñu toog ñaari fan yoonu déggantewul kooku dama ko jege woon mu jege ma loolu te tiw du Futurs Médias taxul déggeen sama sama loolu jarul sax ñu koy nii Sénégal gépp xam nañu sama déggante ak déggeen loolu da ngeen dem laaj ko docteur yi loolu moom da ngeen di dem feeti maître baabu ngeen laaj ko ko loolu moom sama yoon nekkul ci loolu mais pourquoi waxu déggan si maître intéressé leen c'est dama no déglu ma déglu ma déggeen si génn na àdduna ñaanal leen ko yàlla xaare ko àjjana point on tourne la page ñu nekk ci leneen président moom <laughs> xaritooguñu ndax gisanteeguñu mook soxna mais man képp kuy nit ku baax fii ci dëkk bi sama gaayan nga képp kuy nit ku baax ci dëkk bi sama xarit la ka nga nekk politicien ka nga nekk sëriñ ak ka nga nekk commerçant képp koo xam ne nit ku baax nga fii ci dëkk bi laa wax de man laa wax Ndoye Bane sa sama sama xarit la xaw ma ñëpp nag mais képp kuy nit ku baax su ma la xamul sax bëgg naa laa xam xaw ma site internet yee ko wax xaw ma ko wax mais nañ gën a wax ñoom ñëpp samay xarit lañ waa Palais baak ñenewul ca Palais baak assemblée ñoom ñëpp samay gaañ lañu na nga doon nit ku baax rek. man damay politique man je politicien mais sama politique sama dëkk la yam pire damay politique pour développer sama dëkk politique wu ma pour falu de dama bëgg politique pour politiciens yi reconnaître sama dëkk pour yu baax yi ñuy def ci yeneen dëkk yi comme dëkk diine la ñu koy def piir looloo tax mooy politique élection maire yi paase demoon naa damaa gañewul damay politique faruma benn parti fi actuellement nii faruma ci benn parti voilà damay toog xaar ba élection jub si ma xool foo ma neex ma dugg fa dem. loolu du ay marabu rek ci thème yëpp ah sunu émission sunu émission yi lépp lépp risque la mais su fekkee yaa ngi sax ci li ngay def mu doon dëgg rek day incha allah yàlla dina la dina la jàppale ñun duñu ay ragal duñu ay ragal euh, loo am amam fit fit tamit tamit del def dëgg. soo dee def dëgg rek yaakaar naa ni doo ragal dara man awma dara lu may ragal ci lii may liggéey duma ci tooñ kenn dama ci fas ne jaamu yàlla au contraire visé wuñu nit benn mara bu benn buxaaba visé wuñu benn buxaaba bu visé wuñu kenn dañ fay nekk pour alerter population bi alerte population yëgal leen ni lii mi ngi fi moytu leen li moytu leen lii mais Sénégal nag fa doon dëkk bu difficile bu metti boo xam ni soo dee wax dëgg noonu nit noonu ñu bari ngay doon mais ak lu mënti xewet nekkal ci dëgg rek su le senegal gépp bañoon ba mu des yow cundum te nga ne ci dëgg nekkal ci dëgg kooku rek sooy dee nga dee ci dëgg sooy dund nga dund ci dëgg voilà man ci dëgg googu laa taxaw bàyyi woon nit ñi nekk ci internet bi ñii de la saaga ñii naan la lii patati patata topp toowuma leen sax maa ngi ci li ma nekk rek man voilà dafa am ñoo xam ne nag dañoo am jot nit ñi dañuy fen rek nit ñi ñi ci bari lu ñu wax amul c'est pas vrai loolu ku ko wax waxoo dëgg loolu musul am amul benn marabu bu ñu musa woo menacer ñu wala wala ñu dem fa naan dañuy baal àq man nag baal àq pour lan nit ñi dañuy toog fa ñuy toog di créer monter seeni affaire lu ne la ñuy wax lu ne la ñuy waxal ma mi lu ne lañ may waxal man mii ndeyam si yàlla sax lu ne lañ ko doon waxal te gis nga bi mu génnee àdduna tey ji ku nekk di wax Sénégal mooy dëkk rumeur mais suñ lay waxal yow bàyyi leen fa la ñuy wax te nga necc li nga ne dégg nga doxalal jéemal liggéey seen si liggéey normalement bàyyi leen ñu nekk ci grand place yi di wax nekk ci bureau yi wax nekk ci internet bi di wax te nga dem liggéey sa liggéey parce que dañuy téye benn histoire monté ko ba mu ñu koroj ba suñ la ko nettalee danga nga naan lii dëgg la fekk ñuy waxal yëgul lu yëgul lu xew mais loolu nag pour man am jot la dañoo dañoo dañoo dañoo am jot man am naa beneen jot bu dul di toppatoo yooyu dem naan ay da ngay groupoo di baal pour lan gaa baalu ak pour lan loolu ku ko wax waxoo dëgg bu xaabu bu ko wax waxoo dëgg loolu amul. kooku xamuma ko sax comme ni ngeen gisee ay nit di ma xaar ci bunt bi c'était la euh, bon c'est la même chose ah jóge na seen dëkk romb Pire ne ah Ndoye Bane kat fii la dëkk xaar ma jàdd fi xool ndax mi ngi fi mu jàdd dafa guddee. sam papa ni ko fanaanal mun ko doom ji ma boot ndoy baan lañ ko tuddee moom laa doon seet sam papa ni ko nekk fi ginnaaw 22 heures jot na tey da nga yor xale boo xam ne ma deux mois am fanaanal fii bu suba ci la fanaan xëy suba sang xale bi ndekki ñu jox ko paas mu ni maa ngi dem mu dem ci garage bi jël oto jëm si Dakar ni ci man la jëm si ci ay waxam bi mu demee ba boo boori Pout foofu la accidenté yàlla jël bakkanam mais xale bi ci boppam dara jotu ko bi affaire bi demee hôpital mm, waa ñi yore sociale bi ñi ngi téye xale bi ndaw si mi ngi ci morgue ba ba léegi nii may wax ak yéen ñi ngi wër ay parents parce que amul benn papier bu ko mën a identifier ci li mu wax pire li mu wax sama papa donc lañ mën a jàpp ni Richard tool xam ma daal la jógee côté yooyu côté dëkk yooyu gars yi def nañ ay recherche foofu dem nañ ci jumaa ji dem nañ ci gendarmerie bi annoncé nañ ko ci rajo yi yeeg yooyu yëpp mais ba léegi nii may wax ak yow tey jii ngeen ñëw nii ba léegi corps bi mi ngi ci euh, hôpital régional xale bi tamit mu ngi ci service social yi foofu ñi ngi toog di xaar fi nii affaire yi dafay dem yéeg ci kaw procureur moo mën a joxe ndogal pour ñu denc ko procureur moo mën a joxe xale boobu mu wax ni man lañ ko tuddee amaguñ ci nag ay information yu wóor que ni euh, ndaw si xale bi man lañ ko tuddee mais la ndaw sa wax sam papa ca pir loolu lañ mën a jàppagum ba léegi ba soo demee Thiès fa xale ba nekk xale bi ndoy baan lañ ko yooyu ba léegi nii bon dañuy ñaan rek yàlla na yàlla def li gën li ci gën daal en tout cas incha allah dinañ ko def. loolu mënaguñ cee egg mënaguñ cee egg parce que mbir moo gis étape par étape la fi mu ñoo ñoo ngi nekk ci étape bu identifier yaay ji d' abord suñu identifier yaay ji ba xam ni yaay ji fii la dëkk ci la ñuy pousse enquête bi dinañ xam su boobaa dinañ xam jëkkëram dinañ xam papaam dinañ xam yaayam dinañ xam ba xam ndaw si li mu doon wax noonu lu am la wala amul su fekkee nag identifier wuñu ndaw si. donc procureur ci bopom mo meuna jël décision parce que mo meuna jël décision bi ni xalé bi diw lañ koy jox wala fële lañ koy yobbu suñu éggé nak ci ci ci ci ci ci étape boobu noonu dinañ am benen taxaway bu ci am su fekkee procureur accepté nañu jox ñu ko kooku amul benn problème parce que man dama juddu ci famille bo xamni dama juddu judd fekk sam papa <laughs> yar ay xalé yu goor ak xalé yu jigen yu bare bare bare juru len donc man taxaway bobu sam papa yor am ba légui non la taxee am na ci ño xam ay doomi jambour yo xam ni mën na ni man ma len yoré ay samay trondo ay tout donc <laughs> li nane dom ja nday ja wala baye ba dom ja lolou mo fekk man mom su fekkee ya tok yor nit mom mën na ko mais yeggaguñu foofu suñ fa yeggee rek lu mu laaj dinañ ko def inshallah allah. liggéey rek so do liggéey te do tricher diko ko jox akam di wax deug sénégalais yi dafuñu dé so len dé wax deug Nous nañu soo leen nous à la veille auditeurs suba ñëw jox ko respecté auditeurs Les auditeurs ont respecté la di la ont di la déglu Ils ont respecté wul di affaires la fay dem fa nga ni indil lu des day Senegal Sénégal tout le monde. que daaneel nag yeneen yeneen émission yi ko daaneelu leen nag moom loolu moom <laughs> Sénégal ñooy ñooy ñooy jugé wala yéen journalistes yi ngeen def ci sondage def leen son waa def leen def voilà def leen def leen def sondage xool waaye xalaas day xëy gisuma sénégalais buy xëy suba ba ngoon jot te dégluwoo xalaas soo ko dégluwul heure bi muy jàll tamit di ko dem kari ci internet bi waaw xalaas moo xew moo xew de waaw ñuy ñaan yàlla na jàmm yàgg ci réew mi di leen sant di leen gërëm